la Sonko tout simplement parce que dafa am ay sénégalais. Hmm. ci biir Sénégal ñu jàpp ni ñoom ak ñu nekk bitim réew aussi. Hmm. ñu jàpp ni non réew mi daa war a tàkk. Hmm. mais ay la yéwén man ma yore sama njaboot ñu nekk fii ci réewum Sénégal mais dinaa leen doon jàngi parce que conséquence mën naam li ko waral mooy. am na ñoo xamee ni dañoo xëy ne ni Sénégal dara du fi xew. ñu jël seeni njaboot yóbbu ñu dem jàngi. ñooñu mën nañoo génn école euh, am na ci koo xamee ni fukki at ak ñaar la am bal fekk ko fa mu faatu am si koo xamee ni euh, ci ay jamono 2021 ba tey kii dafa daajoon table am di jaay kii di menuisier kii di nàngam ak nàngam fukki bakkan ak juróom-ñaar rot ci ci fan yi ñu weesu yeneen ñett taftalu ci mu ñaar fukki bakken yu ci rot ñu ne nag bakken bii di yii di man en tant que responsable en tant que sénégalais bëgguma Euh, balle perdue jot balle perdue ci mbedd mi bëgguma génn sama kër lacrymogène sonal ma sonal boo xamee ni ma asthmatique wala ma am benn feebar boo xamee ni euh, saxaar sax daf ma war a daf ma war a sori mm-hmm. ma dem faatu ci saxaar soo xamee ne mu ngi jóge ci balle lacrymogène wala ci euh, nu ñu koy ci grenade lacrymogène sénégalais bi nga xamee ni dafa tiit xam nga lan moo ko tiital ñii ne ni tey buñ ma defee nangam tey réew mi tàkk keneen na ni coow lee bari waaye boo bëggee taal réew mi man maa nar a taal réew mi ci sa ci beneen façon ku nekk li ñu naan euh, di yëkkati ci kàddu benn xeetu terreur mm-hmm. autant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition mais comme l'a dit le président Macky Sall et pour moi c'est important mooy dafa am devoir boo xamee ni état moo ko am waxuma pouvoir état moo ko mm-hmm. état suñu wax état nag Euh, bokk na ci service am yoo xam ni dañoo am boobule devoir envers les citoyens muy police muy gendarmerie muy tey justice muy tey lépp luy force de défense et de sécurité muy armée muy sapeur pompier mu ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni seen rôle xam leen ca la mën a génn këram dugg taxeem wala taal otom dem liggéeyukaayam te du tiit ne ni euh, bal perdu mën na kaa dal wala Euh, lakk-lakk wala dañ ko agressé wala nangam dafa am devoir boo xam ne état central moo koy rek mooy de protéger toutes les personnes de protéger tous les biens de protéger ce pays ci benn velléité insurrectionnelle foo mën a jóge ak loo mën a doon ak koo mën a doon maa ngi koy wax sànq si tubaab euh, bu dee dañu daan Sonko du tax réew mi ñu effacer ko ci carte àdduna euh, mënul nekk bu dee dañu ko libeere wala ñu acquitté ko nekkoon ni lañ lay tuumaal yëpp defoo ko du tax réew mi arrêté tey ñi ko ñu bëggoon ñu tëjlu ko euh, du tax ñoom ñu am ci dam wala ñu taal réew mi non le pays va continuer à être le Sénégal ba yàlla na ni euh, tukkal naa tukkal naa àdduna lépp lay raafal lépp ay jeex waaye le Sénégal continue d'être le Sénégal maintenant nag c'est dans les discours nga xamee ni ci la ñu war a seet nu ñuy apaiser tension. te euh, gis nga dialogue bi ñuy wax nii ak lu mën a doon mooy gis nga booy waxtaan maak Mansour mën nañoo xuloo xuloo bu tar mais dina am moment boo xamee ni faw ñu toog man ma am lu ma yàbbi ci la moom mu am lu mu yàbbi ci ñu mu mm-hmm. ndax ñu mën a am lu ñu waxtaanee loo xamee ni day concerner kër gi ñu bokk. Mm-hmm. mooy nag politicien yi dina am moment boo xam ku ci nekk la nga la nga sex la nga yëy téye ko sa gémmiñ di nga am loo ci yàbbi la nga ŋànk di nga am loo ci yàbbi keneen am lu ci bàyyi pour li ñu bokk kër gi ñu bokk muy kërum Sénégal donc on est dans ce dans ce dans ce moment là mais moment de responsabilité responsabilité ci camp bu mu mën a joon mais surtout responsabilité ci force de défense et de sécurité yoo xam ne on est dans un état de droit mais l'état doit être fort mais force état du rey nit force état du boom nit. Euh, am na ay images yoo xam ne daan maa ngi koy gis muy circuler démb. am kuy filmer policier yoo xam ne dafa am ko ñu jàpp mais kooku ñoo wax ne dañ ko jàpp ak pistolet. mais dóor bañ ko dóor jël sa crossu euh, lance grenade lacrymogène yow policier nga dóor ko ko c'est un acte boo xam ne isolé certes. parce que du ñëpp a koy def ndax on a une police républicaine une armée une gendarmerie très responsable mais am na si deux ou trois comme ni mu amee ci presse bi ñoo xamee ni mhm. la def teguñu ko ci yoon loolu ñu def ministre de l'intérieur li ñu naan brigade prévôtale sax ni ñu ko war a woo ne ko diw mi def loolu parce que quelle que soit la situation yàlla nga rey nit da am ay droit mhm. am na loo xam ne waru ñaaw dafay ñaaw léegi imaginer ñu partagé ko ci réseaux sociaux. amoon sax waa ji fekk nañ ko ak ngànnaay ba léegi kenn déterminé wul. daf ko amoon garder ko illégalement c'est vrai que bu arme moom bu amul kayit c'est illégal mais daf ko amoon garder ko wala daf ko amoon pour am lu mu ci defi de toute façon xam nañu ko xam nañu fi muy liggéeyee est-ce que tu sais une chose ci ngànnaay boobu mhm. c'est ce qu'on appelle un pistolet alarme xam nga luy pistolet alarme mhm. teel di nga ko dégg waaye du rey nit du gaañ nit pistolet alarme la waa ji yore bal yi ay bal à blanc la ce que j'ai vu c'est les photos sont là ce serait bien ñu delloo si ci photo yooyu. pistolet à l'arme la yore. pistolet à l'arme xam nga la te pistolet boobu je peux donner la marque xam nga la Beretta. pistolet Beretta à l'arme la. ñu bind ci ko ci suuf di PK. Papis nee na ma Birahim xam na arme. <laughs> non. c'est non. Euh, hommage non non dama lay expliquer xam naa arme parce que dañ koy dañ koy dañ koy. dañ koy liggéey. Mm-hmm. su ma nee liggéey mooy dañu man dama bokk euh, ci fédération tir et chasse. may nuyu sama club muy club kew mhm. te am na benn message boo xam ci wàllu woowu foog ma dellu sax parce que tey ñu ngi jëm ci jeu de la jeunesse mhm. mais amuñu sax champ de tir bu ñu defee mhm. li nga xam ne moom mooy euh, euh, yooyu les yooyu les jeux la jeunesse yu mën a tàggatee ndaw ñi parce que bu nekkoon fële gendarmerie Wakaam euh, tas nañu ko bëgg ko joxe donc ça c' était un un un un truc nu ñu koy woowee benn parenthèse loolu nag état du Sénégal foog nga wut ci pexe nag yóbbu tout à <laughs> mais li tax ma ne arme boobu c'est bien euh, ñu nekk régie parce que les photos la wax mhm. waxuma waa ji mais man je ne m'appesantis pas sur l'arme en question <laughs> mais plus sur l'acte posé par un policier bu ñu koy teg ci seen L200 boobu mooy dóor na ko mbéj na ko loolu day am d'accord dina am ay ay bavure laa ko mën a waaye mais nga jël sa crossu li nga xam ne moom mooy sa lance grenade mhm. fëgg ko ko parce que police bi ko doon def malheureusement amul niveau bu ko permettre xëy na mu xam kii arme bi bi mu yor parce que arme boobu bu jëkk kenn aay wu ko woon Sénégal c'était pas interdit mais ba tey jii sax mm-hmm. attention ba tey c'est pas interdit di tax sax ñu commencé ko aay di la ci demander benn euh, ki nga doon yow pour ñu jaay ko foog duñ ko jaay dafa xaw nuroo ak arme arme calibre métal mm-hmm. métal bi nga xamante ni bi dafa am sax ay benn benn artisan yu koy transformé di génne affaire bi ci biir. bi koy bloqué pour nga mën cee def balle réelle muy tiré. mais arme bi noonu ci moom en tant que tel reyul sax picc bu dee tëll nag fu waay toll da ko dégg mais reyul picc mooy arme bi wax ah, en général boo gisee. Mhm. foo ko fekk ci suuf dañ ciy def PK. néew na nag. Mhm. suñu force de l'ordre di ñoo xam ne ràññee nañu loolu. xam nañu jéem ñu défendre waa ji nag. mais li ñuy dénoncer mooy ba a ti bañ a tiital waa Sénégal. Mhm. xam nga photo waa ji bu ñu ko génnee ci internet bi. ñu ni eh Sénégal léegi dafa am ñuy doxe ay ngànnaay mais Thiala sa xel du dal. kon ñun suñu discours bi pour jàppale sax force de l'ordre yi la. pour jàppale sax état bu Sénégal la pour jàppale sax ñi yor suñu suñu sécurité la. parce que bu ñu tiitalee ñëpp ba ñëpp ja kenn ku ne kenn dootul wóolu sama wàll mais jàppale terroriste nga jàppe ma terroriste suñu nekkin dafay xat te ñoom dañuy sonn. mais pour jàppale ni seen liggéey moo sabab ñu def ci benn benn taxaw seetlu ci arme bi ni mu tudd. arme bi xëy na Euh, kañ lañ ko doon aaye kañ nga doon dem armurerie yi ñuy jaay la ko ak léegi lu tax nangootuñ la ko jaay ak kan la ñu koy jaay léegi lan moo ci xew après moo tax ñu def ci taxaw seet seetlu googu comme mën nañu juma mais ñun lu ñu jàngal war ñu ko noonu la fa yëf yi tëddee moo tax biwaay bi jël soit dafa am solo euh, niñ kooku noonu xam nañu ko fii la dëkk Dakar xam nañu ay mbokkam donc est-ce que yoru ko woon pour aar boppam comme ni ñu génnee fotom fépp lan la ko droit am réservé parce que na nangu ñu sacrifier ko noonu rek te amuñ ci dara lu leer fii la ñu doon gis benn waaye bu doon laver lu otoom euh, ñaari laveur yi kenn gis armam ci biir oto bi di foo ak ci des dóor ko mu faatu loolu daaw la biraay bi yàggul. Mhm. bi ñu jàppee waa ji ba léegi mu ngi prison. Mhm. parce que dafa am arme bu légalul parce que amul këyit et pourtant laata muy jënd arme bi xam nga la moo tax dafa chauffeur AIBD la woon Dakar dafa yëpp ay nit dakaar di leen yóbbu AIBD nekk te ñooñu demuñu AIBD ay agresseur lañu. agressé ko ci guddi gi nangu alalam mu tiit nag fan yooyu la lijjanti dem jënd benn arme def ko ci otom pour protéger boppam xam nga kooku certes yor na arme ci façon bu légalul mais dafa nekk victime mu lenn te it nag yoru ko pour benn objectif bien déterminé da ko yor donc pour tiitalaate pour mën a aar boppam xamuñu kii nii ba xam loolu moo taxoon mu jóg parce que dañ ko gis rek ak arme bi ñu génne ko tas bali xëy na police bi ko dóor xamu ci xamu xamu xamewul sa arme bi moo tax dafa laaj dafa gis nga tàngo xol gi ci Sénégal. fépp la. fépp la te ñëpp ko war a bàyyi. parce que daf xibaar bi ki ci mbedd mi way takk der bi àttekat euh, bi ministre bi souvent nga dégg ay réponses yu bàyyi ko ci ay ministre da ngay tiit da nga naan est-ce que kii fàtte ni fàttewul ni moom homme d'état la. Hmm. dafa di mën a encaisse des fois dialogue démb bi rek manqué wax dialogue démb bi am na ay discours yu jóge ci ñu boole politique ak diine. nga xam ne maa ngi doon xaar ci ñoom comme discours Cheikh Bamba Dièye comme discours Khalifa Sall mais seen discours ci gàttal boo bëggee dégg dëgg mooy dañu ne président Macky Sall saw yata ngi sa loxo ku xoolul fi nga joxañ tëccal mais mais attends réewul la moo xam dañu woote dialogue dialogue bi dara jiituwu ci dul defaraat moral yi génn xol yu tàng yi ci nit ñi yoon di am ñu bañ di yàq deru nit ñi police fekk la nga yor ngànnaay déjà yow am nga droit bu la war a denc kan moo kan moo ko ku photo armée yi même loolu war nañ ci dellu si ci wàllu yoon bu njëkk bu ñu musaan woo ñun conférence de presse ci ay Samba Boy yoo xam ni police dañ leen teg loxo bu ñu ñu mayee pour ñu jël ci ñoom photo dañ leen di dëpp ñu wane ginnaaw ñu jël noonu photo mais léegi bu ñu la nee ciix ci fi ñu la jàpp ñi la jàpp ñoo lay photo photo sa kanam photo li nga yoroon dugal ko wala ñu lay filmer di la simuloo sa tubéy di la simuloo sa mbubb mais yooyu dañ ko war a parce que yooyu bokk na ci li indi tàngaayu xolu nit ñi. bavure la loolu bavure la bavure la. Hmm. yooyu dafay jox nit ñi ay sañ-sañ yoo xam ne jaaduwul te ni muy amee ci way takk der yi noonu lay amee même ci civil yi je me rappelle ndeysaan benn histoire foofu lay jeexale ci àlla benn paa boo xam ni. dañu joxe ay tool. Morolan moom mu ni toolam bokkul ci suuf si commune bi joxe kenn joxe toolam parce que toolam dafa am ay limon. mu dem ci tool bu xëy moom dem di liggéey ay doom dem liggéeyi faneen paa bi ay ouvrier yuy liggéeyal tubaab bi waxuma chef de chantier de ay ouvrier yoo xam ne ay manœuvre la ñu woon ñu jël leen di leen fay journée ñoo jàpp paa bi li ko teke yeew ko ci tool toolam suba ba ngoon 9 heures ba 18 heures ñu soo ko ñu soo ko dindi gis nga loolu gis nga gis nga ñàkk nite googu gis nga ñàkk xel googu noonu nag lay raame di yéeg ci kaw ci kaw ci kaw mais waa bi ñu ko jàppee war nañu xam ban ngànnaay la lu tax mu yor ko fan la jóge fan la dëkk ngànnaay ban conséquence la am avant ñu koy photo di ko publier parce que photo boobu ak publier moom am na ci droit. non xam nga juste ci ci loolu très rapidement mooy. Mhm. Euh, man damay am damay jox confiance force de mhm. défense et de sécurité muy police muy gendarmerie muy ñi ñëpp ñuy liggéey ci wàll mhm. boobu. ci nee nañu diw jàpp nañu ko xam na lu tax ñu jàpp ko. mais man fu ma d'accordul man mooy nga jël yow policier nga jël sa mbéj nga dóor nga loolu chaque jour ñu gis ko fépp. jarul xaar film sax pour gis ko mais nga jël d'abord ñu ngi lay filmer parce que léegi lépp loo def mu feeñ. ñu ngi lay filmer ka toog fële ki ki ko filmer peut-être il était à quoi cinquante mètres de de la scène. Mhm. mais sa smartphone permettre la nga mën a zoom gis di fa xew mais nga jël sa crossu euh, euh, lance grenade. Mhm. nga xamee ni weñ lañ koy defaree. nga dóor ko ci bopp nit ki mais kooku boo ko gaañee yàlla fekk moo dafa rey nit. mais du yow yaay rendre justice xamul tax muy indi jafe-jafe mooy di ngay gis koo xamee ne day dem ba bañ policier parce que am na benn ci policier boo xamee ni boo xoolee vidéo bi am na ci kenn ci policier yi kuy arrêté ñeneen yi mhm. ne li ngeen def tegu ko ci yoon di leen buux mhm. c'est parce que kooku il est responsable comme toute la police c'est police responsable. dina ci nag. Mhm. ay deux ou yoo xam ne man xamul mel ni wooyee. ay zoro d'accord euh, Birame bala ko mën a mën a jot parce que li ngeen gis ni euh, c'était kër góor gi la fa euh, Ousmane Ousmane Sonko dëkk ñoom ñoom journaliste yi foofu dañu leen gazé donc mu nekk loo xam ne jamono ji li ñu koy faral di gis bari na coono yi nga xam ne moom la taskatu xibaar yi di di di dal ci terrain moo leen di dal ci terrain bi bu ñu demee ngir ngir def seen liggéey donc mu nekk loo xam ne dañ koy ñaawlu chaque fois donc waa régie bu fekkee mën ngeen ñu euh,